mu nekk loo xam ne du bett kenn saa bu ñu koy gis ci internet bi muy yenn vidéo yoo xam ne saa bu ñu ko gisee loxo dem ci biir gémmiñ te tibb yóbbu ko fa yenn saa yi ñu koy tuddee sex tape wala sax vidéo lomotif muy ñaari tur yoo xam ne miines na ko fii ci senegal ci internet bi ci ñi nga xam ne baaxoo nañu dugg ci biir réseaux sociaux yi mu bokk ci jëmm yi nga xam ne dañ koy faral di génne di ko fësal ci képp ku ko mës def muy jëmm ji ñu naan Adamo moom nag bokk na ci ñi nga xam ne bis bu jekkoo koo xam ne dafa daal di filmer awraam wala sax muy séq ak nitam filmer ko loolee bu ci jekkoo daf koy daal di génne en direct ñëpp di ko seetaan loolu nag laata ma koy def dafay woo jëf-jëf ji su la woowee ba noppi ne la da nga dugg ci sama live jéggalu wala nga expliquer li waral nga jëf-jëf ci soo bëggee ñu baal la yi saa sax mu def loolu la leneen loo xam ne bokkul ak loolu jëfam yooyu nag ñenn ñi daa ko ci ŋàññ naan li muy def xawi sutura la baaxul ñenn ñi ne déedéet ñi nga xam ne ñooy xawi seen suturay bopp mooy ñi nga xam ne dañuy filmer seeni awra mbaa bu ñuy seq ak ñañ ko war a seqal ci suuf ñu koy filme loolee bu ci nit jotee ba wili pande ko boroom moo ko teg boppam ñëpp jàpp ne aadamoo kat loolu muy def baax na waaye bu ci génn woon saaga yi kenn du ko ci gën ñii jàpp ne baax na ñi ne baaxul ba kenn ku ci nekk xëcc fi nga toog jàpp saw njàmbur moom mi nga xam ne moo daan jëf jëf ji ni mel yet bi bi la yoon ci kawam la dal ci benn vidéo ñu ngi ko ci gis moom mii di Adamo mu bëgg a weddi aw tuuma bu ñu teg ci kawam gàll ko ci ndoddam dem na sax bay addu ci biir waxam naan ñun fi ñu bokk dañoo weex dunq lu xew lu nekk dañu ci daal di joxoñ baaraamu tuuma comme nag ñun dañoo weex dunq samay mbir dama koy wane léegi ñëpp gis ko muy awraam la bëgg génne live en direct ñëpp xool ko mën a def équivalence entre awra bi ñu koy tuumaal ne moom la ak bosom bi nga xam ne moom lay wane ndax ñaar yooyu benn la lii moo ko dugal ci jëf gi ni mel laata ma koy jëf nag waat na ko bu baax a baax ci ki nga xam ne moom la yaakaar ne damay génne sama awra ñëpp gis ko bi mu ko jëfee ba noppi mu mel ni coow li dañuy kurru ñëpp di ko jàppal ak di ko bàyyil indil aadamoo am aadamoo gi ne ay ci li nga xam ne moo di ci biir réseau social bi ñu koy yàkkal musiba ak mbelengaan ñu ci bari di xool ne aadamoo mii mbaa yàquñu ko ba far nag muy génne awra bi nga xam ne da ko daan nëbb di génne yo si ñi nga xam ni itam daa nañu dal ci kawam ñi ci ëpp daal di génn ne képp ku mësaan génne sa awra jàppal ni tey jile yow yar nga bosam bu la neexee nga denc ko saa bu la gisalee sa bos nga ne ko sa bos a ngi nii yow itam muy loo xam ne est-ce que laajul nag ñu daal di tiit ci suñu àdduna est-ce que laajul nag ñu daal di xoolaat suñu bopp est-ce que laajul itam ñu mën a xoolaat ni ndax diine dëgg-dëgg ndax lislaam dëgg-dëgg ndax sariya dëgg-dëgg nit ñi ñu ngi koy dund ba léegi ndax am na ñoo xam ne diine jàngal na leen ñu jël la mu leen jàngal di ko jëfe ci zahir ak ci baatin ndax nag bu ñu xoolee li fi indi lii yépp ñaar kott ko waral muy ñaaw jikko te yenent bi waxoon na ko innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañu ma fee yebal ngir ma mottali jikko yu rafet yi ma fi fekkoon doonte ni sax fii la ko fekk waaye boo déggee mottali mooy lu matul lañu koy def kon nag jikko yi ñoo yàqu beneen bi ci topp mooy nouvelle technologie bi muy smartphone yi nga xam ne l'objectif bi taxoon tubaab bi liggéey ko mooy jariñu ci tey jariñe noppaliku ci yenn yu baree bari wàññi distance wàññi temps bi ñu daan yàq ci lu baree bari ci mbirum jënd ak njaay mbirum jokkalante mu gën a yomb mbirum retiré ci wàllum koppar ak ya ca aju mbirum am xam-xam te du jar ngay daj yenn ci ay coono loolee lépp tubaab bi dëxëñ ko ci biir nouvelle technologie bi waaye itam liggéey ba tedd ci te du jar ngay heurter kenn wala ngay gaañ kenn wala ngay jot ci àq kenn nga bañ cee yàq sa temps bi yëpp waaye def ca l'essentiel wan ko ginnaaw mu mel ni ñun sénégalais yi nag dañu ko def lekk ak naan dañu ko def añ def ko reer def ko ndékki dem sax ba mu far nekk drogue ci nit ñu baal ñu muy loo xam ne bu ñu ko amul dafay mel ni dañoo tàqali kook suñu sago muy smartphone boo ànd ak connexion dugg ci mboolem xeetu application yi yàkkante fa musiba ak mbelengaan boo waxul ci kaa kenn du la seetaan sooy wax ci diina ñëpp dëddu la wan la ginnaaw sooy wax ci luy defar kenn du la wuyu kenn du la faale dañuy jàpp ne sax yaay seytaane bi waaye ñi nga xam ne nag moom dañuy yëkkante musiba ak mbelegaan saa su ne ñooy jël pay ci li nga xam ne moo di ci réseau sociale bi dem na sax ba suñu waykat yi di woy woy yoo xam ne dafay mel na ay tandasante la kii di sàkkal boppam noonu kii di naan taluma la kee jóge fële naan na gën a dal lenn lu ci nekk ñu koy wax amatul benn njariñ bu ñuy mën a gëstu ci biir réseau sociale bi bu ñu ko nemmee koo fii ci Sénégal muy ñaari jëf yoo xam ne daanaka amatu fi jikko dafa raaf technologie bii nga xam ne moom lañu fi teg di ko jëfandikoo dafa mel ni ci beneen sens bi lañu ko jubale waaye nekkatul ci sens bi gën fi nga xam ne fii la ko tubaab bi jubale woon am na lu fay yàq noonu itam la amee lu fay defar kon nag laajul ñi defaraat toogaay yi jekkandalaat yëf yi xoolaat suñuy jikko jéem a wëlbatiku nag ci li ñu diine jàngal ndaxte diine da lay yar ba nga ni nër mu jàngal la ba nga ni ar ba noppi ni la kaay nga pratiquer ko waaye nag di théorie rek te doo ko jëfee amul benn njariñ réew mii nag nekk na réew moo xam ne dafa am ay kilifa yu tedd yoo xam ne daj nañu lu ne ngir mën a réserver fi nekk daj nañu lu ne ngir mën fee téye ak mbaax dàq fi lépp luy ak safaan ñu mën cee tudd Serigne Touba mi nga xam ne mënees naa jël ñaar ci ay téeréem yoo xam ne ku ko gëstu xam ne ku fonk mim réew la muy Matlabul Fawzayni ji mu ñaan yàlla la mu ca ñaan yépp mu defal ko ko ci suuf si suuf si war na ko mën a am te yell na ci moom beneen bi ci topp muy masaalikul jinaan la mu ca wax ci defar nit ak defar dëkk bi nit dëkke loolee lépp war naa yee ñu bari demal ci xilaasu dahab bu Seydi Haaji Malik la mu cay addu ak la mu cay wax demal ci ku mel ni Seydina ba ci Seydina Limaamu Laay demal ci Cheikh Ibrahima Ñas Kawlax demal ci keneen ak keneen ci ñooñu nga xam ne li ñu fi def du mës raaf lenn rek mooy mën a am nekk fi ci njub ak mbaax mbaa ne coow ca armeel ya xaar leen fa ba keroog ñu ñëw mën la faa fekk mbokk yi wattandiku ci lu waay mën mat naa bàyyi xel bañ di sóobu ak di dugg ci loo xam ne du la amal benn njariñ Sëriñ Tuubaa nag waxoon na ni wala tujaalis xayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal muraad nee na bul toog ak mukk koo xam ne du la dolli ci ñaar yi ci sa xel ak ci sa diine saa boo toogeek nit te dolliwu la ci ñaar yi dawal te ba ko fa te xam ne yàgg-yàgg ci perte nga la la jëme ñu xoolaat toogi ni waxi ni jëfin yi lii lañ leen doon indil ci jàngat bi ñu doon def ci phénomène bi am ci réew mii ñuy ñaan yàlla jubal ñu te may ñu ak njub guñ ci saxal dàkk suñu àdduna ba keroog ñuy dugg bàmmeel jërë ngeen jëf ci suivre bi fii ci Feeling dakaar premier portail people et politique du Sénégal. Dakar yaa ngi Feeling Dakar